dal leen ak jàmm waaye jàmm amatul ci assemblée nationale ndax ay njombe yu dul jeex yu fa am Walf Quotidien du ñu fàttali ne ci yooyu la njombe bokk na ci coal faux billet ci assemblée nationale te doon lu yóbbu woon Ndungu Sine député tey bile assemblée nationale coow jibati fa mu ñeel mbirum passeport diplomatique te nu tudd ca ñaar ci ay député yu coalition Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien xëy amal taxaw seetlu ci bile pencum ndaw réew mi ak la jot am ak la jot a xew yépp waa ana Moustapha Niass te booba léegi kenn déggu ci Moustapha Niass njiital assemblée nationale anamu mu féete ana lu tax nangoogul addu ba tey ci yi la njombe te xewee ci assemblée nationale yéena kaabi di l'observateur ne gannaaw bu mu doonee njiital assemblée nationale lu ko dalee 2012 ba tey te mandam war a jeex ci weeru sulet 2022 yéena kaabi ne waa njeextal gu tar njeextal gu taq suuf lool ndax la jota am ci assemblée nationale te lépp aju ci kilifteefam l'observateur ne bile assemblée nationale mi deram yàqu gannaaw coowal faux billet ak mbirum passeport diplomatique yéena kaabi gis ne Moustapha Niass mi le war naa jël matuwaay ci dar daar ci li xew ci assemblée nationale am na ci cër gu mag maanaam am na ci responsabilité bu mag te tey noppi waru ko moom Moustapha Niass yéen kabi di l'observateur ne te moo ne de assemblée nationale bi le xalif général des Tidiane di Serigne baba Sy Mansour jotoon na ko waxtaane yàggut junjoon na ca lu bëree bëri xamaloon askan wi ne bi le assemblée nationale xiiroog ngaayook dóorante kurpeñ sulante mboot ak naka sudul noonu moo am ci bile pencum ndaw réew mi mi fi waroon a nekkal askan wi yéen kabi di Sud Quotidien yemook askan gu jaaxle lool ci bile pencum ndaw réew mi ndax ñaari mbir ya fa jot a xew di mbirum passeport diplomatique actual faux billet yéene cabinet te moo ne de way yi ak waa société civile seen gis-gis def ca waroo El Malick Ndiaye mi yor wàllu communication ca Pastef ay kàddoom ci Sud Quotidien gis ne assemblée nationale bile la ñu a saytuwaat bokk na ci règlement intérieur ba maanaam ci charte yamu tegu te ca fay njiital parti fonk sa kàddu gis ne assemblée nationale lu ko mun a jagal ëllëg bokk na ci ñu xoolaa tànneefu député yi wàll joojo ne bu sañoon nguur gi jël matuwaaya ca war ci bile assemblée nationale waa ñoo lànk ci Sud Quotidien daal di joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi Macky Sall seen kàddu lañu fekk ci biir yéenekaay bi di Vox Populi waa ñoo lànk ne la am ci assemblée nationale du lenn lu dul mafia d'état business ci wàllu passeport diplomatique bu jéggi dayoo moo am ci assemblée nationale waa ñoo lànk xëy xayma yi tukkee ci business bi am ci mbirum passeport diplomatique yi lañ cay am ci koppar lañ cay buub ci koppar toll na ci juróom-ñaar fukki milliards ak ñaar waral ci biir yéenekaay bi Vox Populi waa ñoo sàkku ci procureur mu ña ca jota loru yéenekaay bi di critique ne ndax investiture yi ci élection yi yitteem ndax du jur loraange ci coalition Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi gis ne fantasiro tàmbale na am ci diggante waa APR ak waa parti socialiste tey bari na ay gox yu socialiste yi jiite waa APR taxaw tembe ngir yooyu le gox tàbbi ci seen loxo yéenekaay bi ne loolee la ñu nemmeeku ca grande Dakar mi socialiste yi yàgg jiite tey waa APR samp nañ fa seen candidate di ndey sali Diop Dieng ngir mu mun faa wutu maire socialiste ba ne ca Grand car yéenekaay bi ne bu dee ca Kaffrine xëccoo ga nar naa tar lool ci diggante Abdoulaye Wilane ak Abdoulaye Sow ak feneen ak feneen yéen a kaabi di la dépêche républicaine ne bu dee cappadoor ndaw ña daal dinañu fësal jëmmal candidature Mamadou Racine Sy njiital mouvement alsaar ay kàddoom ci la dépêche Mamadou Racine Sy daal di tàllal loxo ñëpp woote waxtaan gu yaatu jëm ci luy suqali ëllëg Podor ba ci xewum ndaw ñi dugal na ca loxoom taxaw na ndaw ña dëkkee ca quartier ba ak biir Podor jox leen financement yéen a kaabi di l'évidence ne bu dee ca biir Louga Mamadou Mamour Diallo ma ngi fay gën di yaatal ay banqaasam ma ngay dagaan kàddu ndaw ña l'évidence ne ca Tiwaawoon section communale ne daal dinañu bàbbeeku fekki coalition ànd defar Tiwaawoon bu Abdoulaye Ndiaye Ngalgu waa parti réew mi ne lépp ngir defar commune bu Tiwaawoon yéena kaabi Direct News xëy ñu fàttali ne libéraux yi jotoon nañ fee gagné commune yu bëree bëri ci élection locale yi weesu tey ay ñooñu Abdoulaye Wade pare nañu tembe ngir dagaanaat baatu wi ci élection locale bu ñu sukkandiko ci Saliou mi xamle ne soobu nañu ci njaayum carte ya ak waajal élection locale jot naa bloqué ay compte Bougane njiital gëm sa bopp ma doon tibb tànk tey njiitu réew mi Macky Sall la joxoñ mooy tibb ay comptam bëgg leen a tëj ràpp yéena kaabi di lu toll ci ñaari milliards moom la nguur gi di sàkku ci des médias jëm ci wàllu impôt ak taxe Bougane Gueye Dany ay kàddoom ci la turbine ne du kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall moo koy fexeel ngir bugg ko sànk sànkaale itamit groupe de presse am Bougane Gueye Dany ne nguur gi jot naa baal entreprise yu bari ci wàllu fiscal tey ana lu tax mu singili group des médias yéena kaabi di libération ne Fouta Tampi woon ni na léegi ñu ngi ci Fouta Weli ñu sukkandiko ci Fatoumata Ndiaye njiital mouvement Fouta Tampi ma doon ñaxtu ci jafe-jafe Fouta ay kàddoom ci libération Fatoumata Ndiaye xamle ne xel tàmbale naa dal ca Fouta ndax lu aju ci fosfatu ndendoori askanu Fouta tàmbale nañ caa gis seen bopp nguur gi tàmbale naa defar yoonu Dandemayo ak teg xeer wu njëkk bu hôpital bu Wuro Sogi libération ne lii moo tax Fatoumata Ndiaye xëy di kañ ak di bàkk njiitu réew mi kaabi di Vox Populi na ba dina tàmbale njàng meek njàngale mi ci année scolaire 2021 jàpp 2022 bu ñu sukkandiko ci xalif général des mourides ma rafetlu tolluwaayu liggéey ba yéene kaabi di la Soleil ne liggéey gu yaatu gum fi liggéey moom dem si yàlla Bruno Diatta tax askanu Sénégal xëy ko delloo njukkal ci ab livre goo xamante jëmmal nañ ca kii di Bruno Diatta jaar-jaaram ak chef de protocole gamu doonoon ci nguruk Senghor ga woon ci nguruk Abdou Diouf ba ci nguruk Abdoulaye bi ameel na ko njukkal ndax royukaay la yéen a bi di suñu lamb ne ndax rëg-rëg mun naa roy ci yëkkineem déet ndax yaxaya mi toog lu toll ci fukki at ak juróom yu mu déggutoon muñal ci lamb ji yéen a bi xëy di laajte ndax rëg-rëg mun naa topp ay tànkam Malick Thiandoum ne mun naa nekk waaye du yomb zàlloo ne rëg-rëg mun na ko amal ndax tolluwaayam ci lamb ji yéen a bi di réew mi quotidien ne kawteef ne lii xeewul fenn fu dul ci réewum Sénégal ne ab soxna moo fab paaka jam ko jëkkër ja ñu ne deetawaay soxna sa wëlbatiku kalaame ci yoon maanaam kaso réew mi quotidien la leen boole bokk na ci gannaaw bu tabaski jotee jëkkër ja ne soxnaam ne bila yoon dañuy tabaski ji ci këram maanaam ci kër goroom soxna sa ne déet xel xalaatu ko wut pexeem ci saasi jam jëkkër ja ndax buggatu koo gis